patriote yu bari ñu ngi naqarlu génnu cat bu yanamaar waaye patriote yi dafa am loo xam ne il faut que ngeen xam ko mais surtout ngeen comprendre ko gis ngeen état bi nga xam ne son excellence Bassirou Diomaye fay ànd ceeg son son premier ministre Ousmane Sonko pour jàppale leen non du yomb de pour jàppale leen ànd ak ñoom du yomb ndax ñoom nekkuñ ci ay ñu ngi gërëm diw ndax diw moo jàpp ci projet bi ñoom nekkuñ ci ay ñu ngi gërëm diw ndax moom moo tax mbir mi egg fii ñoom nekkuñ ci considération yooyu ndax ñoom dañoo gëm ne képp ku ci def rek c'est parce que da nga nekk un patriote profondément da nga bëgg sa réew bëgg Sénégal profondement moo taxoon mu jaral nga def ci sa temps def ci sa énergie def ci sa alal ñoom loolu lañ gëm loolu lañ gëm te mooy dëgg les patriotes moo tax bu leen tombe ci piège man kenn faalewu ma bu leen tombe ci piège wu man kii dafa falu lijjanteetuma déedéet bu leen nekk sax ci considération yooyu yéen ci la ngeen nekkoon te mu nekk conviction continuer leen ci ndonte ñoom ñooyu réew mi waaye yéen continuer leen ci lancé boobu ndax yéen yéen a leen mën dimbali pour ñoom ñu réussir mission bi bu fekkee ne yéen a ngi continuer ci lancé boobu maanaam yéen a ngi def ngir yàlla tax yéen ngi def ngir Sénégal c'est très important li ma leen di wax nii. moo tax gis nga dina am ñeneen ñu génn ñoo xam ne mosu leen ne ne ñu attaquer régime bi ñu ngi ci yoon bi di ñëw waaye lépp dañ koo xam ba pare lépp dañ koo xam ba pare parce que gis nga président Ousmane Sonko fépp fu mu war a jaar pour xam. pour mën a évaluer pour mën a expertiser benn situation da cee jaar moo tax li am yëpp dara bett ko ci te am na yeneen yu ñëw yoo xam ne xam na ko billahi am na yeneen yu ñëw yoo xam ne xam na ko ñii pour nga ànd ak ñoom non c'est-à-dire doomu aadama bu ne booy judd da ngay ànd ak sa ngor yàlla képp ku sàq daf laa sàq ak ngor waaye li gën a jafe mooy ngor googu nga denc ko garde ko ba bis bi ñuy jébbal sa borom mais loolu moo jafe am na ñoo xam ne dañuy dem ba ci biir wéccoo seen ngor ngir ay situation dafa am benn corruption boo xam ne am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ci société bi dañ daan dund ci corruption boobu te nekkul loo xam ne ñoom ñoo ko sàkku déedéet am na ñoo xam ne fi ñu toog lañu toog seen ruq ay nit yu nekkoon ci régime bi ñoo yebal ay nit jël ay teraanga di leen ko jox mu leer leen ne lii alalu askan bi la ñu jël ko def seen poche noppi kon ñooñu ñu ngi doon dund ci état bi fi jógee comme loolu nag mënatul ne maanaam ñi fi nekk tey amuñu dërëm bu ñu maye wallahi amuñu dërëm fifteen bu ñu maye amuñu ko moo tax nag di ngeen gis dina am ñoo xam ne foog ñu génn wax ndax lañu doon am ñu leen ko doon jox te laajuñu ko amatuñ ko coup de fil yi jot wala bu ñu soxlaa ministre sàngam jël seen téléphone woo ko ministre bi décroché ñu wax ak moom ministre bi ne ko wuy y' a pas de ok maa ngi ciy taxaw léegi léegi loolu amatul jeex na Sénégal Sénégal yëpp ñoo yem. amul ñuy favoriser bii sénégalais par rapport ak beneen sénégalais comme loolu nag amatuñ ko mais il faut que ñu génn wax il faut que ñu génn wax moo tax ma ne leen génn yi ñenn ñi génn di wax bu leen am dara lu leen ci metti c'est parce que yenn privilège ak yenn accès yi ñu amoon amatuñ ko ndax ñi fi nekk nekkuñ fi pour joxe ay privilège ak ay accès dañ fee nekk pour liggéey réew mi te réew mi dañ ko liggéey moo tax bu leen am daru leen met ci yenn sorti yi ku mu neex génnal def conférence de presse point de presse wax la neex yéen vous êtes dépassé par la jeunesse sénégalaise maanaam ndaw ñi dañ leen dépassé ba ñu waree génn xeex jaayante ndaw ñi dañoo génn xeex jaayante nekkuñ ci ay considération moo tax ma ne yéen nag da ngeen tardé vous êtes dépassé par cette jeunesse moo bu fekkee yaakaar ngeen ne am ngeen benn influence pour changer na def naka su dul noonu jéem a salteel liggéey bi nga xam ne ñii ñu ngi koy liggéey mais da ngeen di sonal seen bopp bu yeboo ngeen dem ngeen toog ngeen noppalu da ngeen di sonal seen bopp parce que tey au Sénégal nous avons une jeunesse tellement consciente des enjeux nous avons une jeunesse tellement consciente des enjeux que képp ku yaakaar ne mën nga leen nax da ngay sonal sa bopp. dégg naa ko moom caat mu naa ñun dañ ñoon xeex pas pour teg leen fi au pouvoir mais dañ ñoon xeex pour Sénégal moo tax ma ne foofu leen jeunesse bi dépassé parce que jeunesse bi da doon xeex pour teg ñii au pouvoir. jeunesse bi doon xeex pour teg président Ousmane Sonko ak ñoom Bassirou Diomaye Faye au pouvoir parce que xam nañ ne ñoom ñoo woote pour liggéey réew mi xam nañ ne ñoom ñoo nekk ci dëgg. xam nañ ne ñoom ñoo nekk ci siraat xal